Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également Gaël de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Box sénégalais, en hein. fait, faut le maintenir que 14 régions du Sénégal, Rokoulou Khadi, Gorgo Khadi, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également au la l'hôpital et ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak ñu nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire ak génne la ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne de fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xale leen àjjana fi daw si Gaël te on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité

mën ngeen ko sétane légui sax bëgg laa bëgg a wax lien bi def naa ko ngeen dem xol ko légui sétane Erling Braut Haaland le monstre des espaces gars yi ki nga xamné également moom mooy donc Luciano Spalletti mom dal mom fas yéene nouvel entraîneur bu euh, Squadra Azzurra bu Italie selon les dernières informations né on a len d'accord nañ ci principe de son rek moy ndàmpaay yi ñu waroon jox Naples pendant ça également ki nga xam mooy donc Xavi mom fini ni nii moom Barça déggo nañ pour mu prolonger contrat am li des nak moy daal di ñu bayyi xol kañ la ñuy fësal li nga xamné ne mooy xaatim li nga xamné mooy contrat bu bu Xavi mu wëy di nekk entraîneur bu Barça pendant ce également waa Arsenal seen mayu rafet bi mooy mayu seul bu Arsenal mayu bu rafet na ngeen gis Saka daal sol le futur grand joueur au monde booy bi xool ko rek booy bu nekkoon brésilien kenn ne nii. ñëpp nee nañ mooy futur ballon d'or wala mu nekkoon tubab mais c'est un excellent joueur Bukayo Saka pendant ce temps aussi ki nga moy donc euh, Ismaïla euh, Spilissar tay dafa war a dellu Metz bi nga xamné nak fa la lépp doré ci mom ah mu war dem fofu war fa jouer ak ñom tay ji ni Metz nga xamné bu jamono jëm fa nekkoon sax Marseille daf ko bëggoon jamono joju ki nga xamné gal également nak moom donc ki di Riyad Mahrez démb dugol na but encore une fois ah, donc euh, def na passe décisive kérok tay dugol na but Riyad Mahrez ah, le joueur algérien ah, en provenance de City mi ngi lek xaalisam mi ngi dugal Mahrez mingi le lekk mingi mi mingi le mi ngi lekk ay merguezam sa ba ko Habib Jara hein donc joueur de l'équipe nationale du Sénégal inshallah rabbi rabi bu fekkee ne def na euh, regroupement prochain regroupement bu septembre donc le 9 ak le 12 septembre le 9 contre Rwanda le 12 moy suñu amical ak Algérie Habib Jara war na ñëw ndax nee waw Sénégal selon les informations également euh, ki nga moy donc Aliou qui frappe un grand coup ñëw Habib Jara nak de hein, day rek aujourd'hui Aliou Cissé mi euh, ci continuité li nga nak moy donc ligueyam waajal benen génération parce que xam génération bi ñu Coupe d'Afrique bi bu jéxé mom lénen lay doon donc Habib Diarra aujourd'hui nga xamné nékkon euh, na ci espoir ou France yi jël na décision ñu man bu ñëwul woon mom Habib bo ñëwul woon mom damay paré ci yow man sax commencé woon naa ci yow parce que doomu Sénégal yow Sénégal nga juddoo géejawaay gi nga yaro et tout donc ñëw suñu fierté nga nga ñëw fi bo ñëwee da nga wara ñëw war ñëwul da nga wara ñëw Habib donc ngeen gis ko ni moom ay famille yam ñoo di remercier également parce que éducation dafa am solo nga nekk xalé ñu nampal la jil la ba paré wan la tàggat la ci ci sa culture ci say valeur donc di remercier également famille am par rapport ak nga moy abib Habib nga xamné ne temps ñëwoon na fi waxoon na leen ko joxoon na leen information en exclusivité ñëw fi dem magal ba et tout Abib Diarra donc aussi c'est un joueur plein de potentiel nga xam ne actuellement Juventus de Turin mi ngi pour daal koy recruter président bu Strasbourg génn na ñun Abib Habib dañoo bëgg mu suñu projet bi ñu bëgg a teg pour Strasbourg moom mu nekk au cœur de ce projet am na club yu nekk Angleterre yu ko bëgg c'est un joueur très talentueux et pour man marge de progression dessna 19 ans rek la comme numéro 19 bim sol euh, marge de progression des il va beaucoup apporter à l'équipe nationale du Sénégal concurrence non lay démé comme ça milieu de terrain bi day gëna a neex ay ñom euh, Pape Alassane Gueye Ismaël euh, kii bokk Pape Pape Matar sar ah bu ñëwé ñi fi donc aujourd'hui également Aliou Cissé day préparer, peut-être l'absence de Nampalis Nampalis bi nga xamné gars ba léegi amagul club ah. Nampalis jusqu'à présent amagul club championnat est commencé na donc il sera un peu court ba paré septembre ñëw na presque mi ngi nii ah gis ngeen ko donc Nampalis avec son manque de temps de jeu boobu mooy tout moom la Aliou Cissé nar Nara euh, teg de boor en tout cas gars yi li mo nekkoon information yi ñu jox c'est toujours un plaisir de vous servir wéy leen di like et surtout gars yi abonné len abonné len gars yi bët ci cloche de notification ngeen jëk a jot vidéo bu lu bëgg am information yu wóor te mais également dem len aussi ci Baba Show lien baa non noonu dem seetaan euh, li di stratège 4 avec Haaland le monstre des espaces abonné fa jàppale ñu gars yi ndax jàppale ñu moy jàppale sen bop bu baax ci le bonus ñu la jaa jëf.